ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla sàmmal boppam Ablaye Thiaw fu mu jublu yàlla na fa yëwu yàlla jublu ñi nga xam ne nag yàlla dogal na tey jii ñoom ñépp ñu jóge fi ñëw fii teew fii ci jàmmalaay maam Seydi gii ah yàlla na nu yàlla gën a jàppale te képp koo xam ne itam yaa ngi koy wuutu ci bërëb bi nga xam ne tey jii moo fi nekkoon ba yàlla jële ko fi yal na la yàlla def ngay nit koo xam ne itam ku yàlla baaxe la ni ko yàlla baaxe woon ba tey jii mu jóge fi ñun ñëpp ñu teew de ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla def ci fii ñëwit yàlla na ko yàlla jàppale ba teew gi nga xam ne ab Ablaye teewoon woon nag fi ak maandu gi nga xam ne amoon na ko fi ñu ngi ñaan ci barkeer bàyyi Laye ak Seydina Issa mu tedd mi yal na ko yàlla taxaw yëg-yëg bu doy waar la yëg ndaxte wax dëgg yàlla yëg nañu yëgug jullit yëgug jullit mooy euh, ba ñu ko yëgee lu ñu ci jëkk a wax mooy yàlla nag moo ko indi woon moo ko yóbbu rek waaye nag ndegam sëy naa limaamu la yàlla yóbbu yóbbu rasulullahi kenn du fi kenn du fi des kon ñu ngi ñaan ci yàlla moom mii nga xam ne tey yàlla jëlee na ko fi yal nu yàlla taas ci barkeem zahiran ba baatinan alhamdulillahi alladi haadana li haada wa ma kunna li nahtadi amin ya rabbal alamin mu nekkoon nag koo xam ne ah, yàlla daf ko defoon mu daan doon kuy dajale moom Baye Ablaye ndax moom pusa la woon du woon lañ set pusa la woon daf daan dajale daf daan dajale fu nekk nag muy kërug diine gu nekk Baye laay Baye si Baye Abdoulaye taxaw na fa wax fa kuy Seydina Limaamu ah ñu ngi sant di ñaanal yàlla eh, tey jii Baye Abdoulaye yàlla na ko yàlla xaare aljana mook xalif ba canab bi nga xam ne yàlla dogal na moom itam mu génn àdduna ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla mi nga xam ne daal moom yal na nu fayal Baye Ablaye yàlla na nu fayal Baye Abdoulahi yàlla na nu yàlla fayal Baye Abdoulahi. jërëjëf